parlons programme s'il vous plaît mais laissez-moi répondre à sa question de façon vraiment pertinente parlons programme et aujourd'hui c'est ce à quoi euh, loolu laay ñaan sénégalais ak presse nationale bi ak internationale bi parlons programme le président Déthié Fall dafa ñëw avec un concept bu ñuy wax euh, le Sénégal bon à vivre et beau à voir le Sénégal bon à vivre et beau à voir se pose sur trois trois fondamentaux qu'on appelle AES. AES pour démarrer avec d'autres sous-ensembles. A, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons vu que le Sénégal importe des centaines de milliers de tonnes par an de riz pour vivre. te gis nañu Sénégal mënul dundal boppam kooku c'est une réalité il faut le dire et que tey jii pour ñu mën a dundal suñu bopp alors que am nañu une jeunesse bi nga xamante ne tey bu ñu xool la population du Sénégal nga ne yow sa jeunesse jàll na de 65 pour à 70 wala 75 pour cent de jeunes tu ne parviens pas à avoir une agriculture industrialisée industrialisée bi nga xamante ne moo lay permettre nga assouvir à tes besoins sa souveraineté économique sa souveraineté alimentaire nga téye ko sa loxo là y problème quand je vois euh, les agriculteurs aujourd'hui tey ñi nga xamante ne ñoo war a passer à la transformation de l'huile ñu ne la béy nañu gerte bi la totalité de la production jël nañ ko ñu jaay ko c'est parce que y a pas une surveillance au niveau de la production et de la gestion des stocks quand je vois que aujourd'hui tout ce que nous devons consommer comme produit à c'est-à-dire lu ñu lu ñu naan la boisson que ce soit euh, boisson gazeuse wala jus de fruits ça vient de l'extérieur il y a problème alors que tous ces produits cette matière lépp fii la jugee lu mel ni ay dëkku naar yi ko lan ngeen mënee concevoir tey ñoom ñu ñuy jaay ay canettes jus de boisson y' a problème. ñu jàll ci loolu léegi loolu c' est l' agriculture. Hein, l' agriculture non mais absolument okay. parce que il faut qu'on ait des champions économiques. En, dans le domaine de l' en faisant quoi par écoutez il faut mettre d' abord à disposition des hectares combien d' hectares arables avons-nous au Sénégal aujourd'hui est-ce que xam nga ni tey Sénégal ak superficie bi ñu am yépp pour war a mën a dëkk la nga xamante ne moo des te bayuñu ko moo ëpp fuuf mais lu mu bari bari bari bari si on ne le met à la disposition de ces agriculteurs yi nga xamante ne pas n'importe quel parce que tey boo demee ci réew yi nga xamante ne dañu développé <clears throat> da ngay gis benn wala ñaari agriculture agriculteurs ñooy dundal des milliers d'habitants tey ci optique boobu la ñu war a nekk en terme d'agriculture suñu ñëwee ci saa tribune oh, moom tey xaw ma ce qu'il a contre moi mais bon non contre moi la de mais mais sauf que bon ah. sama argumentaire peut-être daf lu lu ma bëgg a wax moom mooy pourquoi Déthié Fall comme li ngay wax ni yëpp moom moo koy moom moom doo koy prôné pourquoi moom demul woon si Macky Sall liggéey moom pour pour ñu changer affaire ensemble écoutez xam nga le président Déthié Fall n'est pas comptable du bilan de. non waxuma comptable su fekkee am na j'ai bien ah, nga ah, làkk te namp nañ ko dégg nañ ko ma làkkee nasaraan nga ne boobu baaxul su ma làkkee non bu ko argumentaire te argumentaire dafa baax ci li nit di wax. parce que kay déglu attendez gis nga attendez. alors la personne moo ngi dem te am nañ beneen invité dañu war waxtaan ak moom. Euh, su ma sañoon AES e nga wax ah. AES mu topp Pape. Pape dalay laaj bu la laajee da tontu mais AES E bi lu muy signifie ak S bi aussi. E bi c'est l'éducation. voilà pourquoi l'éducation parce que da ngay gis koo xamante ne à la fin du mois il perçoit son salaire mais le tiers de son salaire va va dans l'éducation de ses enfants il y problème. mënoo nekk tey sa biir kër kër gi nga nekk sax jëndoo ko cash payoo ko cash yaa ngi koy fay à la banque le tiers de ton salaire euh, banque mu ngi koy encaissé beneen tiers bi l'éducation beneen tiers bi nan ngay joxee dépense nan ngay fay courant ngay fay sa ndox. su jugee ci loolu la santé la santé il faut que y ait des structures sanitaires gis nga les cases de santé là il faut les éliminer teg des structures de santé yi nga xamante ne tey ça sera à la hauteur des attentes des Sénégalais quand vous mettez en place des infrastructures il faut un corps médical spécialisé qualifié et que cette santé la soit à la disposition de tous les Sénégalais de quelque niveau de de de, de perception que ce soit quand je vois dans les hôpitaux nga indi sa malade ñu ne la xaalis bu amul duñ ko mën a laal c'est compliqué. très